Salam alaikum. la alias artiste hip hopeur de dëkk bu ñu Fondé Eliman. tey yalla defna inshallah incha jour bi vendredi le 6 bi lañu ñu suñu projet mixtape composé de 16 titres projet bi mu ngi tudd e clone di wax ci système bi ñuy dundu di di wo nit ñi pour ñu dégluwaat aussi projet bi pour mëna xam exactement la réalité xam asi aduna bi ñuy dund exactement lan moko wundu lan moy infiltration lan moy exactement choono yi ñuy dund ni lan moko waral en plus euh, mixtape bi ay thèmes lay wax quoi mixtape bi juste li ma qui sentu moy nit ñi comme que am ay valeurs yo dañ ko fi ba paré am nañ ko ba paré ñu am yar bo fekk nañ ko fi ma euh, surtout nak jeunesse bi surtout jeunesse bi ñu xam lan réalité ak lan nous fiction ñu xam lan moy li war ak lo xam warul ñu xam lan diversion ñu xam lan manipulation ñu xam exactement c'est quoi le bon vivre africain ak lan moy suñu réalité ñu dund ko ndax jam ak salam, baña ci l'oligarchie quoi en fait album cinquième colonne bi juste sound bu cinquième colonne la tudd ça parle du système notre vivre. amna benen sound bu tudd OVM OVM le monde bobu tamit thème la. sound bu Africa Change bobu déjà amna clip disponible YouTube boobu thème la ci suñu dund africain bi lay wax quoi am na yeneen thème comme soori daal di mu ngi ci sama histoire vraie sama diggante ak samay propre waajur am na yeneen thème yu ci nekk comme sagomaay yam sagomaay mooy sa yéene ci man loo xam ne loolu dama ko dund aussi maa ngi ci expliqué am na yeneen tem comme kàlla muumin kàlla muumin mooy le tout croyant lan la tout croyant en tant que musulman ni war comporter nan la dimension la un spirituel. ci album bi ni moment temporel spirituel ci solo ko investigation amna information aussi amna conseil ak la façon dont nit ki normal nan la en tant qu'Africain, en tant que sénégalais et en tant que nitu diine suñu waxee diine nag waxuñu rek lislaam am na yeneen diine yu ñuy révélé mooy en tant que nitu diine ñu delloo la base c'est-à-dire ñu delloo suñu réalité à la base ñu dund en tant qu'africain quoi dañ ko dund ñun ñëpp xam nañ ko boo amul xarit bu mbëkki am nga mbokk bu dem boo ci amul xarit amoo mbokk munoo wax ni déggoo information yi gisoo gisoo lii xew ñaata doomu aadama ñooy dee ci ci géej bi te li ko waral pourtant umpul kenn ah. li ci war nag mooy solution yi ñu ci war a apporter xamnañ ci loxoy ñan la nek mais li gaay wax ndimbal nak day fekk ci loxoy borom man traité wuma sawon bobu en tant que immigration dañoo wara a mbëkki dama ko traité li li waral mbëkki bi ak li nek ci mbëkk bi ak bo fa démé li li la fay xaar en réalité légui ñu mun ci jox ay yenn solution xamné pourquoi pas rester et travailler surtout oser de faire réaliser quelque chose ici moy ñun instant bi li ñuy faral di def ni moy imposer dara. du l'état kess ñu bëri fay nañ à leur mission particulièrement nak état bi ngay wax parce que mom mo ñuy gérer. moom moo gën a faillir à sa mission man pour man nag nekkul kese état parce que euh, lii gars yi di wax avant tout d'abord éducation la quoi xam nga buñ la yaree fi ñu la war a yaree boo déggee ne dee ci mbëkk daanaka xaru la doo sew ngay noonu géej bi buñ la yaree ñu la war a yaree yërmande bi ngay am ci say waajur ak ci say njaboot gëm-gëm bi ngay am pour réaliser dara ci sa àdduna man pour man ni ngay affronter vague yi sinon nga dee ji nga bañ ci dee boo ko affronter woon fii nga mun cee am dara

cinquième colonne bi lu ma jël ko comme titre parce que dafa am ñi may waxal connotation boko déggé ñi ko mom dinañ xam ñan la avant tout d'abord. le reste comme pour ñëwaat ci li nga wax exactement dama bëgg toucher lak yo xamné ne jot naa leen maîtriser touti ma utiliser quelques expressions à part pulaar bi mom dafa may sanwoon yo xamné ne tout est complet olof bi aussi am nañ sa comme où va le monde bi aussi presque olof la ba bon ñi dégg olof nañ mëna comprendre li may wax ñi dégg pulaar nañ mën a comprendre li ma wax ñi dégg français ak anglais aussi boo dégloo son yi di nga ci gis ay expressions yoo xam ne français la yenn yi anglais la dalay lay mën a jox benn aperçu boo xam ne gaañ bi lan lay wax ci son bi quoi léegi bu la ko jaralee nag comme que investigation lay wax nga télécharge son bi boo ci contacté ki ko dégg mën na la firil li ci nekk nga xam exactement lan lay wax quoi. cinquième colonne bi bëgg a attirer attention nit ñi exactement xam na ne comme li ñuy wax nekkul syndicat yi kese ñoo fi nekk wala li ñuy wax euh, côté gouvernement quoi assemblée voté ay lois wala ñuy wax nekk ci bureau fonction publique yi di imposer mais cinquième colonne dafa nekk ben mouvement bo xamné wala disons ben contestation wala disons ay mercenaires c'est-à-dire yow man qui ak kële li ñuy bañ ñi dendoo bañandoo ko dañuy à notre manière le fait de combattre ce n'est pas de prendre des armes créer la violence. On dit que la violence n'engendre que la violence. Donc pourquoi pas, à partir de désormais, nous conscientiser, conscientiser la population, nous rôle ni mature, nous appeler les immatures, ñu xool ñi pare jàppale ñi pareegul ñu liguons ensemble mën a xeex taxawal suñu valeur yi persévérer ko garder ko ñu bañ top sur si loo xam quoi, bëgguñu ko baaxul gëmuñu ko te duñu jëmee ci kanam cinquième colonne c'est juste une formation de base ay mercenaires yoo xam ne dañuy xeex pour sauvegarder suñu valeur suñu valeur suñu intégrité suñu patrimoine et surtout eh, euh, imposer nit ñi ñu mën dundu en toute sérénité et en paix. voilà album bi nak waxuma ji waxu politique quoi en général xam nga. presque bari na artiste yi bari nañ quoi des fois di nga bëgg di def dar nga gis sa morom def ko pour man c'est pas l'essentiel ngay reprendre lolu quoi parce que déjà koku mën na mën na eggee message bi yow fi ko bëgg a politique bi on nana assez joué da ngay nan kay bëggoo comprendre wala dafa am fofar nga défé ko non mais xamoo lu xew wala xamoo le monde bi fu mu toll pour man du yow du man du ki ñuy déglu ñëpp xam nañ réalité bi num démé quoi donc pour man c'est pas pertinent jël sujet politique def ko ci son bi quoi ce qui est plus plus pertinent pour man conscientise sama askanu Fuuta d'abord ñu xam la réalité des choses ñu baña démé émotion ñu démé xalat ñu baña démé affaire de farfar ñu démé affaire de conviction affaire de gëm-gëm ñu baña démé affaire de comme que tayl ni la nañ ko pexé défé ko ni baña taf tafé mais nañ def ndank def calme étudier xam li am ñu mëna imposer li war. lool mom artiste bu ne da kay bëgg quoi da kay soxla. bo génné sa projet nga am say tournée ça soit national ça soit international nga am ay concert nga am aussi ay clip yi ngay réaliser loolu nak mang koy bàyyi ci samay loxo équipe ñing koy réaliser pour organiser am ay date presque bari won na ay village yi ma sollicité won ci concert ci événement yi passé ak événement yëlee passé mais man ma bañone parce que dama nekkoon ci li lancer waale appel léegi parrainage sama projet je suis disponible sama équipe est disponible képp ku soxla doño Alias vous savez quels sont les canaux à prendre pour joindre doño Alias ñu mën def ay grands événements té ce qui est sûr et certain nañ def ngan di concert fi ci Dakar té vous serez tous invités inshallah allahu rabbi